ce n'est pas elle qui va donner à des nervis wala ay euh, xawma lan ay passeport diplomatique et puis ministre de la justice lan la war a mën a yore passeport diplomatique nanu xool fa mu jaar bu doon mën nañ ko reprocher lu mu mënti doon Macky moom mooy njëkk a utiliser loolu noonu ñu koy reprocher moom pour lijjanti kaawam bi mu déparé yónni na ay nit ca moom proposer ko d'autres pa am na teg ay ay ay ay teg xel yu taxam naan oui pourtant bu nekkoon présidente assemblée nationale de du génn mm. c'est faux de dire saa Mimi Touré bu d'accordoon ci troisième euh, mandat wu Macky Sall elle serait présidente de l'assemblée nationale sa constance sa cohérence carrément ci euh, opposé wu troisième candidature moom moo yóbbee moo ko yóbbee li ko yóbbee À cela s'ajoute aussi euh, le népotisme flagrant euh, de sa belle famille ci biir mu taxaw donc kon euh, monsieur Jérôme euh, il peut déchanter foofu mu laal noonu baaxul madame Aminata Touré et n'a aucune responsabilité dans la détention de sa de son passeport diplomatique. d'accord aucune. d'accord alors perquisition bi ñu def nag kër Farba Ngom. Ah yoon maye na ko. mais amul benn mandat de perquisition bu ñu leen jox yo yo yoon maye na nit sans que rien ne soit euh, ñu perquisitionné sa kër. loolu yoon fan la ko may ci ban article la ko may. c' mu ngi ci code de procédure pénale vas à l' cinquante nga wàcc tu verras que ni mën nañoo dugg yow kenn toppeewu la dara. mais jàpp nañ ne sa kër sa domicile. parce que domicile au sens du le droit pénal le domicile d'un député. ma ne il n'est pas député euh, il est député. jusqu'à l'installation defe naa defe naa defe naa domicile au député. Hmm. domicile président domicile wu nangam domicile bi amul immunité et domicile au sens de la loi pénale bokkul ak domicile euh, du droit civil fii fii nii euh, domicile la sa biir oto mën na doon domicile droit pénal dafa am sa définition de domicile bokkul ak kon yow yow ak maître Moussa Diop bokkoo leen xalaat ah mooy moom nee normalement moom ba léegi député la. dafa am immunité parlementaire mbalaanum kiiraay bala ñuy laal daraam war nañu yëkkati déjà immunité bi ba pare doo ko laal ay mbiram. non non non non no non non euh, déjà euh, nekkatul député au sens euh, nekkoon na dem voté ji loi bu dee député la ba léegi nañ dem. def mais léegi kon bu ñu tasee assemblée nationale kenn amatul immunité parlementaire damay laaj damay laaj en tant que juriste. dañ leen di fay. waay dinañ am seen i privilèges mënatuñu réunir à l' assemblée nationale. mais ku ñu fay kay yaa ngi exercer fonction bi ñu lay fay. kon kay nañ dem defi motion de censure. mais loolu mënatul nekk mais tey jii lu tax loolu mënatul nekk léegi. lu tax loolu mënatul nekk nationale kon léegi mu amatu ab kenn amatu ci immunité parlementaire. non je ne parle pas de l' immunité. waaw man je parle de l' perquisition bi ak immunité bi bokkul dara. xam nga perquisition euh, maanaam. jàppuñu euh, Farba. Mhm. per euh, pour lan la. ñu bañ a engagé ay poursuite contre yow. waaw amul poursuite contre Farba Ngom. mais lan moo tax ñuy dem këram. waaw non amul mandat de perquisition non non soyons d' accord sur lan mooy immunité ba pare. waay immunité moom mooy balaa ñu euh, ñu lay kii. Mhm. ñu euh, observer un certain nombre de procédures. waay te loolu mooy immunité. Mhm. balaa ñu lay poursuivre. waay mais est ce que dañoo poursuivre Farba Ngom. pas encore voilà. ci beneen enquete lañ nekk. Mhm. contre euh, Jérôme. am na loo xamante ne njort nañ ne bu ñu demee bërëb sàngam mën nañoo édifier ci lii ñuy seet est-ce que dégg nga li ma la bu baax donc kon la question de l'immunité mhm. ne sa pose pas parce que ce n'est pas Farba Ngom qui est poursuivi nee naa la léegi mën nañ la perquisitionner sans que rien ne puisse être reproché à au maître des lieux donc kon rien n'est reproché à Farba Ngom dans cette affaire du am mandat tey jii par exemple nit mën na ñëw euh, dugg sa kër. dugal fa lu ko neex génn na lii fii lañ ko fekk. loolu laa lay wax ma ne. waay déjà yoon maye na officier de police judiciaire wala juge d'instruction yoon may na leen ñu perquisitionner sans l'autorisation sans le consentement des maîtres euh, du maître des lieux. bu dee dañoo nett dans le cadre d'une enquête de flagrant délit OPJ mën na dugg def euh, perquisition am sans autorisation euh, consentement wu euh, maître des lieux. Mm-hmm. bu ñu nekkee dans le cadre d'une procédure ci ay yenn infraction yi. Mm-hmm. même leur de perquisition sax kenn dootu ko faaleeti. yaa ngi comprendre li ma lay expliquer. Mm-hmm. alors donc kon ci type d'infraction bi. ci type de procédure bi parce que procédure de flagrant délit ak procédure d'enquête préliminaire yooyu yëpp bokkul al may mën na mën na nekk ñu def la perquisition sans euh, recevoir ce consentement d'accord donc tout ce qui est fait sur ce point est légal mais moom de bokkut ak bokkut ak yow xalaat moom euh, Farba Ngom nee na amuñu droit dem këram tëjee ko lañu c'est son droit le plus absolu euh, on en démocratie dafa jàpp ne aussi dañ dañ ko bëgg a comploter dugal fa ay preuve génn ko. lu ko neex jaxase ko. lu ko neex mën na xalaatee c'est son droit le plus absolu mais man li ma la jox c'est c'est mon avis. d'accord ce n'est pas la perception de Farba Ngom ni de maître Moussa Diop mais man sama avis laa jox. Hmm. li ma wax na cohérent na wala cohérent wul nee la boo demee dans les dispositions du code de procédure pénale hmm. nga ñëw ci article 50 nga wàcc ci suuf. Hmm. ba yegg 68 ba wàcc di nga xam ne perquisition. mais mën nga ko def sans pour autant euh, recevoir le consentement de des maîtres du lieu. d'accord euh, l'ex-président euh, Macky sàll moom itam daal dinay ñaxtu nee na dañu persécuter famem euh, ñu mu fi bàyyi euh, xañ ko privilège yi ma amoon. yëpp sa famille politique wala sa famille politique politique. waay kan lañ ci persécuté. ah la wax de ko ci mel ni peut-être convocation yi Manar Sall liñ ko tere ñu génn Sénégal convocation bu Lat Diop garde à vue bi ak ñi nga xam ne aussi ciblé nañ leen. moom moom moom ci boppam dañ ko waroon def noonu. Macky Sall waaye logiquement. et et ne serait-ce que pour un de transparence moom ci boppam. loolu muy wax noonu ne ce n'est pas loolu du persécuté xam nga ko yow. waaw ah, moom tu gères 12 ans ñu ne la toogal ci réew mi ñu saytu. xam nga loolu du tooñ loolu du persécuté mais moom ci boppam il devrait faire l'objet de ça moom ci boppam ngoram war koon may mu génn réew mi. Macky Sall waaw. mais yéen ñii euh, nguur gi moo ko jox moo ko jox avion ah. xaw ma ko ngeen dem euh, waaw mais moom ci boppam. Mhm. bu ñu ko doon diiri sax danañ wax non damay toog ba ñu def reddition des comptes yëpp ma soog ko dem. jàppoo moom mu ñëwaat ak appel bi mu woote keroog ak euh, partem bi. jàpp nga mu ñëwaat. na ñëw na ñëw na ñëw. xalaat nga loolu. na ñëw ah bu ñëwee day wax dëgg yàlla mu gën fa gëw ko nag moom wax dëgg yàlla gëw ma ko amul kenn kuñ fi persécuté amul. te daal malheureusement dans le cadre de ces procédures chaque ku génn dina la ne way politique moo tax ñu kii ma politique taxuñu lenn kenn da nga gérer 12 ans foog nga taxaw rendre compte nag ci li nga gérer nag. d'accord ci ci loolu est-ce que tey jii euh, yan procédure lañ mën a jaar pour topp koo xam ne nekkoon na njiitam réew. bon c'est pas facile c'est pas facile parce que un. Euh, dafa am immunité j'ai l'habitude de dire que ni immunité bokkul ak impunité. privilège de juridiction dans le cadre de l'exercice de ses fonctions mhm. mais dafa am aussi infraction boo ko mën a toppee muy haute trahison qui est un fourre-tout ça n'a pas fait l'objet d'une définition loolu jàpp naa ne ci réforme yi ñëw parce que ci assises de justice yi man en tout cas def naa proposition à ce que le président soit euh, euh justiciable d'accord alors donc haute trahison moom mooy lan mhm. waat nga nga ne di nga respecter. fair faire respecter loi yi ci réew mi. Mhm. décision de justice ñëw na Macky Sall bañ ko appliquer. gis nga ko fi tamit Macky Sall jug na utiliser justice sénégalaise dal ci kaw opposition gis nga ko Macky Sall jóg na ay procédure taxaw mu ne moo ci teg kuddam gis nga ko. gis nga Macky Sall des organes de contrôle ne ko bul signer nangam ci euh, décret d'approbation. Mhm. mu def ko. Mhm. alors si on devrait énumérer les autres trahisons de Macky Sall fii la ñuy fanaan parce que loolu yëpp autre trahison laa ko jàppee. Mm. waat naa ne du ma def lii ñëw def ko waat naa ne dinañ respecter et fair respecter les lois yi ci réew mi et les institutions constitutionnelles. Mm. institution constitutionnelle ak yi ci réew mi lépp Macky Sall Sall bi faa na ko dem yoonam il a trahi son serment depuis très longtemps. alors léegi nag ça ne veut pas dire que ni président mënuñ ko juger. Mhm. c' est Macky Sall lui-même qui euh, chef d' du jugement de euh, Hissène Habré. waay qui fut président de la République non. waay. les chambres africaines extraordinaires. mais mais, mais est ce que est ce que ñaari dossiers yi bokk na. wax ma la parce que bokk na rek euh, xam nga lan lañ bokk. Mhm. Hissène Habré président la woon moom président. parce que on parle de de sa qualité de président. Mhm. waxuma la bokkul bokkul. waxuma la la. donc sa de président. actuellement on où on moom au moment où on parle le président Aziz en Mauritanie mi ngi prison. oui euh, Nicolas Sarkozy Chirac. Mhm. Euh, yoon seen dëkk. pourquoi euh, président moom il il devrait jouir d'une impunité total mhm. maanaam boo jiitee réew mi daal lu la neex defal. massacrer ba heure bu la neex kenn du la mës a àtte loolu fu mu loolu fa la xel sax nanguwu loolu xel nanguwul loolu logique loolu. tollu nga ci benn station boo xamante ne lu la neex def. Mm-hmm. loolu ku koy wax sax war nga xoolaat sama mënta nekk de te mën nañ koo juger